addiye ji nga xam ne at mu jot waa Daaru Salaam dañ koy yóbbul ki fi nekkal Serigne Touba ñu koy dajale ci bés bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku moo Modou Rokhaya ci Daaru Salaam ñu toll ci wàccaay wi tax ñu amaloon li nga xam ne moo di CLD ci Mbàkke ñu ci doon waxtaanee lu jëm ci màggal le ki nga xam ne moom moo di adjoint préfet bu Mbàkke di Cheikh yan Ndiaye mi jiite woon ndaje mi dalal na xel yi ne mboolem chef de service yi daañu jël mboolem matuwaay yu jëm ci bés le li ñu dégg fi moom ñëpp ci chef de service yi ñu wax fii daal vraiment moom dal na xel xel dal na ñoom ñëpp jël nañu engagement comme quoi li ñu defoon daaw ren dañ def lu ko lu ko ëpp. pour au moins màggal bi mu aw yoon comme ni mu waree daal. comité d'organisation bi fësal nañ seeni doléance ci kanamu adjoint préfet bu Mbàkke bi ki nga xam ne moo fa teewaloon sëriñ bi di sëriñ Modou Rokhaya moom sëriñ As Guédé santaat na bu baax ci matuwaay yi. sant bu baax ci taxawaay bi nga xam ne euh, préfet taxawee na ko ba bi yemb ak mbooleem chef de service yi nga xam ne teew nañ fi dégg nañ it engagement yi nga xam ne jël nañ ko te it am nañ ci yaakaar ndax nañ ko daan defee. yaakaar nañ ne nu ko kawee rek lañ koy defee ndax kenn ku nekk feeñal nga ci sa yéene euh, ñu di leen ñaanal suñ borom dimbale ñu bañ mën caa yegg ci jàmm ba mën koo defee niñ ko bëggee. li nga xam ne nag moo metti comité d'organisation bi moo di ñàkk a teewug meeru Mbàkke ci ndaje mi. li ñu xaw a jaaxal tuuti mooy maire bi nga xam ne moom moo nu waroon a dalal wala moo waroon a dalal chef de service yi. Mm-hmm. ci accompagner leen ci bis bi moom moo fi teewul. Euh, te mu mel ni lépp lu ñuy defal Daaru Salaam yaakaar naa moom moo ci war a jiitu. parce que bu nekkul woon maire sax dafa bokk ci bis bi rawatina bi nga xam ne moom mooy maire commune bi am na ci ay chefs de service yoo xam ne mënuñoo def seen service lu dul maire daf leen accompagner comité d'organisation bi it am nañ ay besoins yoo xam ne mënuñu koo matal lu dul maire daf leen accompagner kon mu jot leetaram comme ni ko ñëpp jotee euh, doon na rafet mu teew wala bu mun teew it mu yabal ko ko teewal euh, doon na gën a dalal suñu xel. Serigne Modou Rokhaya moom Serigne As Guédé fàttaliwaat na li nga xam ne moom moo sabab màggal gi. màggal la goo xam ne bisub jaayantewaat la waaye bisub yeesalaat la pas-pas wala bisub engagé waat wala bisub renouvelé waat sunu pas-pas ci Serigne Touba mooy fépp fu njabootu maam Cheikh Anta nekk dañuy daje Daaru Salaam kenn ku ne la nga am nga dajale ko ñu yët ko ki fi nekkal Serigne Touba ngir wan ko ne ko walante bi maam Cheikh Anta amoon ci Serigne Touba tey jële waa Daaru Salaam gën a am taxawaay boobu ci gannaaw ki fi nekkal Serigne Touba loolu mooy bis bi sëñ Modou Rokhaya mi nga xam ne nag moom la yàlla dogaloon mu njëkke woon ko ci ay jamonoom Serigne Touba fayee ko ñu di ko ci fàttaliku. màggalug yees lu daaru salaam ñu ciy fàttalikuwaale du Modou Rokhaya mi ngi war doon le 25 janvier 2020 ci daaru salaam.